tëgg combat bi xaadim arbitre bu tuuti bi la ndaa xam mën lamb ah waay leen ay waay waay waay waay waay waay tey c'est la mi yàlla fi jàmm yàgg ah waay jàmm rek a waral lii lépp musal ci manifestation yi ay waay seen si bu leen génnati bu leen taalati réew mi ah Malick wax ak ñoom ay waay la ñoom ay ay waaw eh arbitre sifflé na Franc moo ñu woon ginnaaw Sokh moo ñu woon kanam Franc ak Sokh ñoom ñaar arbitre sifflé na lewaatoo bi ñu ngi doxee wet ñoom ñaar lu waay doon jaay leen mu lambu toll ci producteur bi gaañu amul baag la di nuyu mbokk internet ak dimanche ak waa univers info wala ma gàllo sama xarit ba ana amat soxu fara ñaar ñaari njaago yi an numéro ma a ñankato Franc ak Sokh ñoom ñaar Sokh Franc ee eh, waay xeex ba ñoom ñaar Sokh déclenché na bagaar dum daan mën na ci am Sokh jël Sokh jël na Franc Sokh jël na Franc ay waay Sokh Franc Sokh Franc waaw waaw Franc daan na ko Franc daan na doole joxul jaamu ay waay njaago bi daan na ay waay njaago bi daan na ko lambu jaa ngi nii waxoon na leen ko ay waay jile